ci lu jëm ci coowal parrainage ak Ousmane Sonko atum 2024 yéenekaay bi ne tribunal d'instance hors classe bu ndakaaru nag dana ci sëgg niki talaata ji moo waral nag mu fësal ci xëtam bu njëkk dippeeko l'audience de tous les risques mu yemook nag Vox Populi dellu suwaat na week-end de galgal moom la ñu weesu nag ginnaaw ku jegi fës gi nga xam ne rek am na ci biir way politique yi ci ay bés gi ñu weesu rek ci jamono ji ñuy waajale élection présidentielle yi jamono joojee sax nag moom maître Moussa Diop ma nga yëkkati ay kàddu ci lu jëm ci exploitation diamant fii ci réew Sénégal yàlla di ca tuumaal kii di Aly Ngouille Ndiaye Mimran ak kii di Macky Sall bés bi le jour ne ay révélation yu doy waar kay yu explosif moom la maître Moussa Diop amal ma ngay jéebaane nag moom di président Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Mimran jëm ci wàllu bu nekk ca palais ma ngay xam ne ni nag yoon daf a topp moom maître Moussa Diop nag ndax li muy wax dara amu ca dara amul ca la muy wax kay loolee la Aly Ngouille Ndiaye xam le nag mu ne maître Moussa Diop lu toll ne tarfatal ay ni ci ay wax xam nag dara du ca dëgg imagination la yéenekaay bi di Le Quotidien di peeko les faux diamants de Moussa Diop ginnaaw tuuma yi nga xam ne rek na ko ci Macky Mimran ak Aly Ngouille Ndiaye moom mi fi nekkoon njiital Dakar dem dikk nag ma ngay xam le ci ab lettre confidentielle ni ñett ñooñee nag dañ doon jëfandikoo jamaa Aly Ngouille Ndiaye moom di ko weddi Ousmane Cissé nekkoon fi directeur des mines ne loolee nag ay kàcc la ndax réewum Sénégal amul jamaa bu ñu fiy jëfandikoo lu mu ci mënti doon daal Tariq Ramadan ma ngay xupp nag ne ab plainte moom dana ko déposé ci yooyee kàcc ci biir biir yoor-yoor bi nag ginnaaw kàddu yi nga xam ne rek tukkee na ci Matar Diop Cheikh Yérim Seck ak Madiambal lu soxal nag wàllum fraude ak détournement de deniers publics waa DGID ña ngay topp lu toll ci ñeent entreprise yoo xam ne rek dañoo luubal juróomi milliards ci kaf ak nguurug Sénégal ñoom nag dañoo dajale ay taxes daal di koy lekk loolaa tax nag kilifa yu senegal taxaw ne nag du ñu leen ko bàyyee dinañ leen topp ba fu mbaxane doonee benn ñu wàddu jëmale ci tukki bi nga xam ne rek candidat Benno Bokk Yaakaar bi Amadou Ba ma ngi koy amal jamono ji nag ca Paris ak délégation bu takk sàkku ca la yëglekaay bii di enquête daal di dellu siwaat nag ak coow li nga xam ne rek moo ci tukkee ci jamono ji l'observateur dafa taxaw seetlu ci cellaaral gi ñu nemmeeku ci Idrissa Seck mi nga xam ne rek kenn dégg ko te it kenn gisu ko fenn noppeem googee nag moo waral yëglekaay bi xëy def ci ab taxaw seetlu Walf Quotidien moom dikk ci beneenub candidat mu di Anta Babacar Ngom mi nga xam ne rek jamono ji mooy avocat bu artisan yi nag bëgg-bëggam mooy yëkkatiwaat lii di artisanat nag ba mu gën a fii ci réewu Sénégal ma ngay xam ne sax ab budget ci cinquante milliards yéenee dugal le solo yëglekaay nag ma ngay dellu siwaat ci sanctuaire marial ba ñu doon inauguré foofee nag ci Popenguine monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Ndakaaru nag ma ngay ñaanal nag njiitu réew mi rawatina réewum senegal ngir jàmm ji nag daal di fiy gën a law libération moom ma ngay àddu jëmale ci coow la am ca crédit mutuel bu Sénégal yéenekaay bi ci li nga xam ne moo tukkee ci enquête boobee nag ay dossiers yoo xam ne rek dañu koo monté ni ñu caxat-caxatee nag koppar yooyeeg la ca aajo loolee lépp nag yëglekaay bi di libération dellu siwaat na ci tàggat yaram ca la ñuy àddu ak lu jëm nag